merci madame la présidente ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu le ministre de la jeunesse le ministre des finance le ministre du travail chargé des institutions euh, di nuyu également mon jeune frère ami le directeur Djimo euh, di nuyu ñi nga àndal ñëpp monsieur le ministre euh, Le président François Hollande disait que si je ne règle pas le problème de l'emploi, je ne me présenterai plus. Tellement l'emploi est un phénomène mondial. Mais le président Macky Sall a beaucoup fait à la jeunesse. D'abord, on parle de chômeur quand quelqu'un a un, a, emploi, a, une fonction, une profession. Mais qui n'a dara mais doo chômeur da ngay wut liggéey sooy wut liggéey nag defe naa ne président Macky Sall teg na fi ay cadre yoo xam ni ay structure yoo xam ni mën na la aider accompagner la nga pour nga am liggéey parce que boo xoolee Prodac boobu ñu wax ma bëgg ñu teey ci Prodac parce que defe naa ni wax toj-toj ak sosal moom li ci biir kaso bi bare na wàññi leen ko parce que yow boo demee ginnaaw yaa yaakaar ji fi mu ne boo demee ci biir du baax kon waxal loo xam si Macky Sall mënul bañ Sédhiou parce que li mu def Sédhiou kenn mosu ko faa def parce que nag et c'est heureux je te l'ai dit l'autre jour que tu plaides beaucoup pour Sédhiou parce que moi j'étais ici avec des députés de Sédhiou di ay kilifa au moins tu prends en charge leurs revendications mais reconnais ce que l'État a fait là-bas yow wax nga fii nii sur le plan désenclavement Macky Sall a fait à Sédhiou DAC de Sédhiou ku ne gis na ko mu ngi dox normal infrastructure yu am Sédhiou amu foo woon mais ndar xëyul sotti c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid mais il faut proposer des solutions alternatives même si vous qualifiez les autres de discours laudatifs vous ne proposez rien sinon que des insultes des invectives et ce n'est pas ça un programme politique c'est ça votre programme politique vous c'est des insultes c'est des effective amul benn politique alternative bu ngeen di preuve de substitution à ce qui existe Macky Sall a créé l'ANIDA le PRODAC le FNPJ l'ANA le FONSIS le FONGIP 3FPT DER PROMIS PUDC PUMA Promoville et aujourd'hui les ICEP les ENO pour former les jeunes leur donner un emploi mettre en place un cadre qui leur permette d'acquérir des financements en développant des activités génératrices de revenus qu'est-ce que vous nous proposez saaga S'ils vont dans la mer, si ces piroguiers sont là, vous êtes les fournisseurs de ces piroguiers. Parce que je dis attention, def nañ ci seen bopp nag nand nañ bi ngeen mujjee woote lu ngeen am le 17 passé kenn da leen a wuyu vous pensez les jeunes vous ont laissé ils vous ont abandonné xam nañ ci li ngeen leen woo pour ñu dee dong la doon amul benn alternative crédible vous vous trompez toog fii ay Sonko cinquième président Sonko fan lay présenté o fas wut rangut ci course bi nu muy rawee ki nga teg encore bëgg ko substituer du rang ci course bi nu muy rawe dama ni arrêtez de vous leurrer gis nga réew mi ku yaakaar ne mën nga ko yàq da ngay nax sa bopp il faut faire comme le président Wade je ne marcherai pas sur des pour aller au palais ne marchez pas sur des cadavres les Sénégalais vous ont abandonné la jeunesse est consciente aujourd'hui et elle ne répondra plus à vos appels et cela s'est vérifié le 17 passé donc vous perdez votre temps ñëw leen rek jege si leen on vous battra